yàlla may ma ndam si kawam tamit ma koy encouragé tamit xam nga. xam nga déedéet ko doon corrigé quoi ma may ko nooy. non dama ko may nooy parce que la woon daal mais neexoon na trop parce que moom mbooloo mooy topp si ginnaaw coob mooy topp si ginnaaw waaw waa yëmbal ñi nga ni xam nga lii yombul amaana combat lii mel ni. lan mooy lan mooy secret bi ak mbooloo mi gone yi ñu ngi la toppee nii macha allah. waaw ah, secret bi dara joxe cër respecté ñëpp yar ak teggin loolu dong la boo ko defee moom da ngay am li nga jii fan la eh, gis eh, ba eh, bëtu Diop de. si yan yan combat. waaw yeneen combat yi suñ ko am rek combat yoo xamante ne tey ñu nii ay combat yu mag am na ko mën na ko yàlla yaa sutura adversaire bu ñu am mu nekk adversaire bu jii am nga koo xam ne ni foog nga teg sa bët Diop. waaw monsieur gën a affaire rek jarul ma cité ndax xam nga ne gars yi ci cité rek. incha allah te tey essai koo laaj ku ne tey war na mën a jël sa jël sa avance. waaw morom morom moo loolu. nga fi lu kenn deful. allah ban ban gu mujj ngay may euh, ñi nga xamante ñoom ñoo lay seetaan. côté waaw maanaam ñi may ñi internet yëpp di leen nuyu di leen jaajëfal di ñoom di nuyu ñii man ñi ñooy sama nit man aw ma aw ku gis ne xamal li yombul barke alxuraan samay xarit samay am di jàmm samay nit su ma xewlee du lekk du naan lépp ñoom la di leen nuyu di leen ñaanal yàlla yàlla may leen tawfeex fan wu gudd di kontaane ñëpp bés ñëpp. jaajëf Ndao merci beaucoup. voilà baaxul. non waa Ngor soow. ndox lañ gi xam ndox ak jën soo ak jën daa mën a ànd. mënu nekk mënu nekk non non soo la la mën a àndal. caagiri waaw waaw noonu la demee ñu ay saalum saalum la. gis nga Diop doon nu mu bëree wàllu xeex euh, da ko entraîné wala moom daa mën a xeex xeexum. non yëmbal la dëkk ñu lépp lañ mën xeex ak bëre foo ñu woo ñu wuyse la koo bëre lañ indi woon sax mais reew na ñu doon jaay moo tax ñun noonu koo dóor ba tëdd. dañ ko doon corriger. barki borom Touba. lu mu leen def. waaw ñun ako ñoo bon ci ku na a wax. ah moom a moo tax ñu def ko lii. wala kay tey ji ni Diop Diop de kan kan lañ kan lañ ko war a jox mu bëri moom. non ku ñu am baax na mais du heure bii quoi. Ah. waaw waa bii di ñëw rek la ñuy bëriwaat. dootu leen bëriwaat. non non. da ngeen noppalu day noppalu ko xale la. xale day sonn. alors lan ngay conseillé tey Diop rek conseillé la. Mm. waaw kooku rek référence la gisoo booy nuñ ko topé ni waaw mais mbolo bi mbolo bi lan la bëgg la wala dégg na wóolu seen bër wala mu demee ma wax la len lo xamul. soow day indi nit. soow bu ci wéñi bi wé rek wéñ ya nek ni nak ñii ñoy wéñi d'accord le kan mo këpp soowu koñ ba. soow ñoy dégg na dañ ko këpp borom soow. borom borom soow mi dégg ah, na dañu këpp panam bi dañu yóbbu panam soow. borom soow mi ah xeyna da wara war a rek. ayca <laughs> jaajëf jaajëf jaajëf merci beaucoup. Ah. maa ngi siyaare. jigéen ñi Diop 2. maa ngi si jàmm. maa ngi si a bilaay man la ya, ya umpaañam yaay umpaañam jabaru nijaayam jabaru nijaayam waaw jabaru amat laa ndeysaan man maay umpaañu booy jóob lan nga may wax si jóob sës ma rëkk te du ma rëkk ah ok yaa ngi dégg sës ma rëkk te du ma rëkk bu baax bu yaru waxtu julli du ko raw ñëpp la sekkal jàmm jàmm ak salaam rek lañ xam ci moom jóob lu mbooloo mi bari bari xale bu ko ne jóob bu jaar sa tur xam nga loolu yombul yombul kon kooku noonu li mu am jomb ko mbooloo mi ko topp yëpp moo ko mbooloo mi nekk ci ginnaaw moom moo ko liggéey. moom moo mu jaar sa tur loolu yombul. yaa ngi dégg kon ca kaw ca ci lu baax. nañ séntu yeneen di victoire yu gën yu foofu téeméeri yoon rapidité vivacité mi ngi ci bi mu wale leneen ak leneen nañ ci dina neex dina xum. dina neex. alors ñu daal di euh, waxtaan euh, yaayu yaayu Diop euh, am yaayu Diop mu ngi nii yaayu Diop deux alors ndeysaan yaayu Diop un yaayu Diop un moom moo nekk nii alors am yaayu Diop un moom moo nekk yaay booy maa ngi lay siyaare. delloo siyaar bu baax yaa ngi si jàmm. yaa ngi si jàmm bu baax. ñu naan Diop deux. ah, ah. mën a wax tey ci Diop yaa seen yaay ku doon yaayu Diop un yaayu yaayu Diop deux. waaw. xana di nuyu askan wi yëpp rek di nuyu askan wi yëpp rek di ci kontaan ndax job ak nijaay ah, job ñoo doon ànd mu ne maam booy damay bay damay dugg ci lamb ji job mi laa tuddee sama bopp booba mi ngi mbappal ñi ngi yëmbal ñu ñëw maam na ma xadi cheikh mi bu dee yéen la bu dundee yéen la deel may nañ ko job ci xol bu sedd guy kon nag loolu dañ ci am kontaante te fu ko turandoom jaar loo fa lay jaar di ko ñaanal nag mu gudd fan ba dërruwaa bi yàlla man na ko yàlla na ko yàlla def ci barke Seydina Muhammad. ban jikko moo la gën a neex si Diop de. yaru yaru na tey na bëgg nay ndeyam bëgg nay maamam bëgg na ñëpp daal yëmbal bu fa duggee yaa papa yaa papa tànta rek bañam bi ngay njëkk a gis Diop daal di ko ñaanal fu mu bugg a yegg rek yàlla na ko fa yàlla yeggale ci barke Seydina Muhammad. dañuy faral di wax yoru ndaw du gaaw tey lan nga xëy conseiller en tant que xale boo xam ne lu a yarul teeyal sa nitu démb na nekk sa nitu démb sa nitu na nekk sa nitu tey koo romb jox ko cër bu nit ñi wut alal wutal nit ñi te bisam bi wane na ko yëmbal ak fépp gisuma fu ñëwul ci bërëb bi fu ne ñëw na fi fu ne fu ne suñu kër day fees dell fii lay waaje waaye yëpp buntu kër ga lay jaar bu daanee day ñëwaat ba ca sama yaay sama yaay eh, dañoo dagg tànkam waaye du tee jom saa yu daanee day ñëw ba ca kër ga kër ga la toog di ko xaar lool ak yaroom ak ko may bu fekkoon daa réew du am cër bi ndax am na ñu ko jiitu ci jóob réewandee tax ñu génn ci jóob kon nag di ko ñaanal moog turandoom bii fu ñu bëgg a yegg yàlla na leen fa yàlla yeggale ak bépp jullit. alors moom rek doy na référence lan ngay wax xale yi nga xamante ne ñu ngi koy topp eh, ci wàllu yar gi ak wàllu déggal seen seen wàll. xanaa ñu xool ci jóob rek bañ a jëlee fi jàmbur te yaru mbëri daal ku roy ci ñoom te yaru doo jëlee fu jàmbur loolu laay digal xale nañu yaru teey bañ a fu jaambur ndaw la day dem rek ñu jàppale ko bañ koo fakkasal loolu rek laa ñaanal sama doom mu bugg yegg yàlla na fa yeggale ci barke Muhammad Kontan naa sama am am am dañ jëlaat kel alors maa ngi nuyu bu ñu lay delloo ziar bu yaa ngi si ñu mag ñuy jàmm tur bi lan la Mouhamadou Lamine Sène Mouhamadou Lamine Sène waaw Mouhamadou Lamine Sène Mouhamadou Lamine eh, nga victoire du de euh, Diop ah ak rek ah rek ak vraiment mm-hmm. te xam ni moom du ñu gàcceel mukk vraiment euh, combat bi métti na trop tolloon na ay moment yoo xamante ni wax dëgg yàlla ñun ñu nekk ak moom euh, nelawuñu ndax di ko ñaanal ndax waaj waaj dafa métti mais nag yàlla def na yàlla may na ndam li waaw ah, ñu koy ñaanal Diop moom mu gën a góorgóorlu bu baax a baax euh, Siteu bu ngoon itamit démérité wul moom itam ñu ngi koy ñaanal bu amee tey beneen combat yàlla may ko ci ndam. alors nan ngay waajalee seen seen doom nan ngeen ko waajalee ba mu bëri bëri bu rëy bi. waaw waajal comme ni doom di waaj comme ni wayjur di waajalee doomam. nan lañ ko waajalee waajal ko euh, yab ko comme ni ni ñu yabee ab seet noonu lañ ko yabee mu dem. mu dem dégg ndigal mu indi ndab li. waaw mais dudu xeex ko. dama ci a neex nag da koo duma daal ko. <laughs> mais loolu la gars ko doon corriger. ko agressé. mais Siteu bu Ngor lan la leen def. ah dara dañ ko mën rek. dañ ko mën rek. daal ko ngeen jaay doole ko. waaw ah, dañ koo jaay doole dëgg-dëgg mën ko. mais guddi gi war nañ leen bàyyi xel. ah ku ñu xel yaa xam de. Diop ah. de rek. Ah. pare de. amateur yi amateur yi lan wax. ama amateur yi amateur yi lan ngay wax ak may la ma tuuti amateur yi. amateur yi may fàttali. waaw am man nag man nag li ma gën a li ma. bayfaal dégg la ma tuuti. man man gis nga euh, sunu nan tax ñu gën ko fonk gën ko naw buñ ko yàqal nan nan dal tuti quoi. waaw boy biskara parce que itam nee bëmm mbër mi buy bëree foofu day bëri ay violent day bëri ay te ñun kenn xamuñu loolu. waaw mais man démb dégg ñu ne euh, violence bi fi bëri woon na fi tamit. loolu sax xalé yi xalé yi ñoo doon def ay nakasu du dund. loolu tamit la nga ci wax la ngay léra ñi nga xamni ñu lay sétal loolu moog lamb ñoo and loolu moog lamb ñoo and mais mbër bi ci bopam ku ne xamni ak yaram ak dalam mm-hmm. barki Serigne Touba man buuse naa damay jaay fii lay jaay mais lu mu yàkkamti yàkkamti bu dawalee motom ba ñu jub sama place dana taxaw ne ma tontoo ça va jia ma dem yoonam. mooy yar gi kon nag yar boobu mu am ñun ñi ànd ak moom nan ko am. nan ko roy nan ko roy ci moom. ci jàmbaar gi ci jàmbaar gi gars yëpp laa koy waxal Baye Fall ñi muy àndal ñu baax la loolu. jaayeen jëf alors gars yi gars yi Momo buy tëj Momo ah alors. siyaare tur bi nan la tur bi nan la euh, nan nga gisee victoire démb xoolal ma sama cameraman nan nga gisee démb victoire démb ah xanaa kontaan rek bettuñu woon wax dëgg yàlla defatina lu ñu miin lii li ñu miin si Diop de euh, baax na yaru na xale jooyloowul mag di ko ñaanal yàlla defal ko jàmm rek te mu gën a respecté tamit doomu yi wax dëgg yàlla loolu la ñuy kii ba muy bëree fan fan la la fekk. boobu mi ngi ma fekkoon fii sunu gaal. seetaan nga combat seetaanu ma ko nag vraiment. ah jéeg jéegal yu. damaa génn rek ak ambiance. jaax na noonu jaajëf merci beaucoup. ayca jaajëf. Kele ma wele kẹlẹ ma wele sora kẹlẹ ma wele sora kẹlẹ ma wele sora asijọ samọni kẹlẹ ma wele sora wayo n bẹ ɲɛwo tẹmẹ bẹẹ kẹ de ne wa ro asiko samadolo asigo tamadole Yeah, mommy, yeah, mommy, yeah. waye mara umami ye eh. we karole na bebe karole de nobnala yebo na waye almami ye khalifa waye almami ye mariyawi umami ye yesu mawa. Yeah, yeah, yeah. Hey, Bala. Let's move.